barhaamu baa'un waraa'un alifun mu jël faydu tiijaan ñu ñuy ci boolem xeeti matière yi togg ko ba pare ñëw teg ko jigéen mooy boot jigéen mooy nàmpal jigéen lépp jigéen yàlla jaara na ko ci jigéen jigéen yaay la. jigéen soxna la parce que jigéen boo gisee mu nekk yaay damay wax toujours ne jigéen boo déggee ñu ne yaay la mooy xaalam bi ci la yàlla di tajale yaatoo mbiram bi jigéen mooy jur waliw yi jigéen mooy jur nit ñu baax ñi kon jigéen li ko taxawaayam ci société bi taxawaay bu yaatu la taxawaay bu rëy la waaye taxawaay bu am solo la moo tax bàyyi waxoon ci jigéen ne suma góor ñi góor lañ radiyallahu anhu sama sama góor ñi góor lañ sama jigéen ñi tam góor lañ moom lam ci jublu woon mooy yëngatu bi góor ñi di yëngatu jëmale ko ci yàlla jigéen ñi tam yëngatoo noonu jëmale ko ci yàlla mu ne na jigéen ñëpp rëj-rëjloo ak góor ñi ci yàlla loolu la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass sama sëriñ waxoon mu ne lan ngeen gis lu góor di def te jigéen defu ko ci yëngatu àddina mu ne bu fekkee commerce la góor a ngi commerce jigéen a ngi commerce su fekkee ne mbay la góor a ngi bay jigéen a ngi bay su fekkee jàng la ak jàngale góor a ngi jàng di jàngale jigéen a ngi jàng di jàngale bu fekkee ne jàng Alxuraan la jigéen a ngi jàng jigéen a ngi jàngale Alxuraan maanaam jigéen a ngi wattu téereb yàlla bi di Alxuraan su fekkee ne xaj la góor a ngi xaj jigéen a ngi xaj su fekkee ne ci wàllu yar la itam góor a ngi yar jigéen a ngi yar te li bàyyi waxoon ci jamono yëpp gis nañ ko ci jamono bi ñu toll dem nañ ba jigéen nekk président réew muy reen yi dem nañ ba jigéen nekk premier ministre dem nañ ba jigéen nekk mm, maire euh, dem nañ ba jigéen nekk euh, ay député dem nañ ba jigéen nekk euh, ay chef entreprise yu mag ci àddina bi kon li bàyyi junjoon ci jigéen yëpp yàlla xamal na ko ci jamono bii nii ci jigéen ñi kon taxawaay jigéen li ko war rek mooy gën a góor góorgóorlu góor gi nag mooy li bàyyi waxoon Euh, gannaaw boo jaamoo yàlla ba pare hmm. na nga jaamu sa borom kër maanaam na nga yittewoo sa yittey borom kër maanaam na nga jaamu yàlla hmm. waaye tam na nga jaamu sa borom kër hmm. ndax moom la la yàlla booleel pour nga mën cee am meññeef mu rafet mën cee am sam sa àjjana ëllëg moo tax jigéen li ko war ci société bi am na solo am na doole taxawaayu jigéen euh, toujours dañuy wax ci olof ne euh, jigéen ñi seen xel dafa sëgg comme seen ween den de loolu amul parce que jigéen bàyyi euh, diine islam bi mu ñëwee rek dafa njukkal jigéen maanaam dafa jox cër jigéen parce que bu njëkk jigéen bu amaan nit ñi duñ ko doon jox cër waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ak diineem ju sell ji dafa jox cër jigéen Cheikh Mada Tidiane Chérif radiyallahu bi mu ñëwee tam dimbalewaat jigéen ñi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye rabi yàlla kay xut bu jamono bi mu ñëwee gën a yëkkati jigéen gën kaa dooleel gën a am ci moom yërmande gën kaa uuf ba pare xamal ko ràññeel ko muy teg tànkam kon ñu jox euh, jigéen benn bés. Mm-hmm. njukkale ko ko. Mm-hmm. maanaam euh, loolu lu am solo la. Mm-hmm. Euh, lii ñëpp war nañ cee kontaan ba pare rafetlu ko maanaam jigéen ñoom war nañ cee gis seen bopp te xam ne lu rafet la parce que jigéen mooy yaay buñ ko joxee kii cër maanaam buñ ko joxee benn bis journée jigéen pour njukkal ko benn ko mm, njukkal loolu lu am solo la ci jigéen kon maa ci njukkal jigéen yëpp yaay yëpp maa ngi leen ciy ndukkal di soxna yëpp eh, di ndukkal mboolem jigéen yi àdduna bi yëpp mm-hmm. ñëpp maa ngi leen ciy njukkal yi nekk Sénégal yi nekk bitim réew yi nekk ci kawnu bi yëpp mm-hmm. maa ngi leen ciy njukkal di wax na nañ gën a góorgóorlu ci seen mm-hmm. wàllu yàlla nañ gën a jaamu yàlla nañ yar njaboot gi ci yàlla parce que ñoom ñooy entreprise bi gën a mag nañ bëgg yàlla itam waaye nañ bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu nañ ko xitmaal ci zahir ak ci baatin parce que moom moo leeral yëpp moo ñëw rek dal di leeral ñëpp wan leen fi ñuy teg seen mhm. kon kooku Nges Gouma Abdoulaye kenn amul payam kon yan na yàlla fayal ñu ko maa ngi ñaan yàlla yal nañ ko teewee ni ngeen déwén yokkute ci zaare ci baat ci barke yonent bi salaa salaam barke Cheikh Mala Tidiane Sëriñ radiyallahu anhu barke maam Alaaji Abdoulaye Niass barke maam Astou barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu barke Maolana Cheikh Ibrahima barke barke sama góor muy Maolana Cheikh Ibrahima Niass barke allahumma salli ala